salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu samay mbokk ci yàlla samay mbokk Sénégal muy mag ak ndaw góor ak jigéen maa ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di def live bu gàtt rekk lépp rek jëmee ko ci li nga xam ne njëriñ la ci ñun ci Sénégal euh, njëriñ la ci ñun ci askanu Sénégal maa ngi jiital ci nuyoo bi président de la République Bassirou jomaay fay di ko félicité ci ñëw bum ñëw Medina Baye ñu ngi koy rafetlu euh, di ci kontaan tamit di ci kontaan bu baax wax dëgg yàlla euh, ñëw na ci këram ndax Medina Baye duñ na kenn taalibe nga fa wala nangam képp ku fa ñëw rek sa kër nga ñëw ndax Cheikh Ibrahima Niass bañ nañ ko boobu moom la ñu wax Baye mooy Baye ñëpp euh, te noonu la yàlla defee woon Cheikh Ibrahima Niass noonu la meloon ndax mbooleem kër diine yu fi nekk yépp ñi nga xam ne ñoo ko jiitu ci zahir ci mag ci zahir euh, fekkewu leen ñi nga xam ne bàyyi na fi seen njaboot gi am na alaaka ak ñoom te boole woon na euh, li nga xam ne mooy alaaka relation kër diine yépp ñu nekk benn euh, am na lu mu ci taxawaloon lu bëree lu bëri kon nag bàyyi ku ñëw rek ci këram rek ñëw nga ci sa kër bàyyi voilà mu ngi noonu kon ñu ngi lay ndokkeel bu baax euh, di rafetlu sa ñëw bi bi nga ñëw Médina waaye dama lay wax rek monsieur le président kon nu ma la koy waxee man moom yàlla dafa def dama nekk nit koo xam ne nit ku dëggu la ni ma mel nii noonu la may lu des ci sama dund ci laay dee ndax loolu laay wax ndax su ma sentiree loo xam ni euh, askan bi gisuñ ci seen bopp ak loo xam ne dafay métti askan bi damay taxaw en tant yow mi nga xam ne yaay suñu kilifa tey yaa jiite lépp te wan nga ñu ko barki démb wax nga ñu ko ndax assemblée bii ñu tas da ne dangaa gis ne loo xam ne rafetul te askan bi bëggeewuñ ko noonu nga dem ba gis ni ñiy doxaluñ li nga xam ne mooy yoon ñu yëkkati loolu teg ko fële kon maa ngi lay wax ne la Médina Baye gàmm international la ñëw nga fa kontaan nañ te gis nga ko te ba nga fa ñëwee fekk nga fa ay xeet yu uute ndax li ñuy wax du loo xam ne dañ koy wax pour di may suñu bopp bës wala di may suñu bopp daraja non non Cheikh Ibrahima Niass darajaam doy na ndax ki nga xam ne àddina yépp xam nañ la ci xam-xam lañ la xamee loolu rek doy na sëkk waaye dama bëgg ñu xam ne ñun tamit ci Sénégal lañ bokk monsieur le président ma la koy wax Diomaye ñun ci Sénégal lañ bokk rawatina Medina Baye euh, Medina Baye ñu ngi jooy courant bi bërki démb ba léegi courant bi mu ngi coupé ba nii may wax yow ñu may oo téléphone nii chaque vingt minutes yu nekk dana coupé ñëwaat benn une heure de temps wala benn trois heures de temps wala nangam te ku nekk xam na ne Kaolack dafa tàng Kaolack dëkk bu metti la dafa tàng jër kon nu tàmbaay tàngee noonu la Kaolack tàngee rawatina gan yi ñëw su fekkee ne courant bi daf cee boole di coupé ndox mi tamit ñëw dama la koy wax ñi ngi fa yónnee pour ñu ñëw taxawee li nga xam ni mooy Kaolack Médina bàyyi fekkee ne ministre baak ak ku mënti doon nañ ko war a taxawee taxawee wuñ ko dama lay wax dëgg te yàlla tax waxuma pour saboter waxuma pour nangam ak nangam mais niñ war a taxawee Kaolack Médina Baye taxawee wuñ ko wax dëgg yàlla li nga yónnee taxawee wuñ ko maa ngi fii de lépp nag buñ fàtte ne ci gàmm Médina Baye Niass la bokk te man Baye Niass moo ma gënal képp koo xam ni taxaw nga ci kaw suuf waaye nag ci kaw lépp tamit ñu delloo ko cër bi nga xam ne moom na ko parce que yeneen kër yépp nekk fii dañuy d'accord na ñoom nañ mel ak lañ leen defal nañ ñu ci boole te respecté ñu tuuti dëgg la bokkuñ ci budget Sénégal dëgg la lii ñuy def lu ñuy ñamal la luñ ñuy soxal la mun naa am taalibe yi xamuñ ko waaye ñun ñu nga xam ne xam nañ àddina dañuy dox ci àddina xam nañ lan moo xew ndax CRD bii ñuy dem jarul ñu fay dem ndax ku bokkut ci budget Sénégal jarul ngay dem CRD ñiy dem CRD mooy ñi bokk ci budget Sénégal nga xam ne dañ naan ci coppit ci biir budget bi dañ la cee dugal jox la waaye ñun xam nañ ne suñ demee dañuy neexal ci benn 3 millions wala ci benn 4 millions mais loolu dafa war a jeex président boole leen ñu ci budget Sénégal xam ne tamit Médina bàyyi dafa dimbale Sénégal ci international dafa dimbale Sénégal ci lépp luy relation internationale kon ñun dañoo bokk ci biir Sénégal ba démb ba léegi courant baa ngi coupé ndox mi ñëwut ñu waroon a bale surtout maag meeru Kaolack wallahi lazim maa ngi la koy waxaat président de la république Diomaye yow laay wax ak ci boppam keroog ba ngeen di dem Chine jour boobu moom mu ngi am li nga xam ne moom la ñuy wax case euh, mu ngi am tribunal pour dem teewee tribunal ñii nee nañ yéen a ko yóbbu ñii nee nañ daf leen a fekk si foofu man nag dara wóoruma ci waaye dama la bëgg a waxal na meeru Kaolack waa Kaolack dañ koo plainte ci benn trian bum triande cinquante millions ci li nga xam ne mooy mairie bi ñu jàpp ko yóbbu ko tribunal war koo jàpp mu bàyyi fi tribunal bi dem nu ko neexee fekk leen Chine toog ak yéen ngeen koy wane te yéen ñu wax nañu dangeen a ñëw pour jubal ak jubbanti ma wax leen ne leen meeru Kaolack wallahi al azim billahi man maa ko wax su duggoon police ñu koy enquête benn minute tànkam dootu tegati ci biti ndax ci ay tuuxi duuna yu mu def ay tuuxi duuna yoo xam ne yu leer la ci Kaolack te ñu ngi leen di wax na leen encore une fois ñëw leen ngeen indi délégation spéciale mu ñëw Kaolack Kaolack dañu leen a xeexal de Kaolack dañoo sonn ci yéen de Kaolack dañoo sonn ci yéen wallahi lazim Kaolack dañoo xeex dañoo xeex ndax yéen pour am yaakaar ne Kaolack dana neex Kaolack moo gën a métti ci région yu Sénégal muy Kaolack nangar tey mari na li muy set set ma wax leen ko billahi wallahi tallaay jàppalewuma mun jaay xalaatuma ko waaye suñu doom la dañ koy tiitaroo kon nu Tiwaawoon di tiitaroo Aziz Ndiaye kon nu Touba di tiitaroo eh, muy Silla wala muy muy Naziru Samb wala ku mën ci doon noonu la ñuy tiitaroo Moon Ndiaye Rahma parce que dafa baax ci ñun gën ci ñun wan ñu loo xam ne ci Medina Baye fu ñu ko gis dañuy kontaan xoolal ki nga xam ne dem na indi quinze camions indi ay peelam mu téye depuis une semaine mu ngi nii keroog la commencé keroog ba ñuy def set setal bi nga xam ne gouvernement bi dañ koy def samedi boobu ci la commencé ba léegi mu ngi Médina fépp foo dem xoolal Médina ñoom moom moo koy liggéey ci moyenu boppam ñu ne deetawaay mu dem yokkaat ay peel indi ko mais kooku mun na munuñ koo ñàkk a wax te duñ ko tudd ndax dafa baax ci ñun dafa baax ci Médina ñun kuy dimbale Cheikh Ibrahima Niass suñ la gisee dañ lay yëkkati suñ kaw doq yi ndax Baye Niass lañ am ku nekk li nga am ngay tiitaroo kon mun njaay jërëjëf jërëjëf mais sëriñ bu maa ngi leen di waxaat président maa ngi leen di boolewaat yéen a ñu wax jub jubal Kaolack gi yónnee leen délégation spéciale sinon su gàmm gi paase lépp passé pour ma wan leen ne leen Kaolack sawaruñ ci kii nga xam ne mooy euh, sëriñ buub kontaanuñ ci kii nga xam ne mooy sëriñ buub liñ doon def muy euh, concert cassulaire danañ bàyyi ba gàmm gi passé ñu oote Kaolack ne leen képp koo xam ne nanguwoo ci doxalu sëriñ buub gisoo sëriñ buub ci lim nga xam ne ci tappale ay sëriñ buub wax ci sëriñ buub liy dëgg ne leen génn leen ñu def ci kasuloor bi boobaa di ngeen ko gis kon di ngeen xam ne Kaolack ñu ngi leen di xaar yow président kon ni ñuy toppee Mamour Diallo kon ni ñuy toppee euh, kii ñaan kon ni ñuy toppee ñeneen yi noonu lañ war a toppee sëriñ buub sëriñ buub dëkkut Kaolack sëriñ buub li mu def Kaolack matagul six mais ba mu ñëwee léegi vingt sept hectares ku ko moom ci kër de Kaolack ci loo xam ne contrat bi mu ngi nii ci man wallahi lazim contrat euh, kër de Kaolack bi nga dem ba am ci vingt sept hectares jël Auchan jaay ko ci ñu wax nga ne yaa ko moom mais eh ñëw leen ngeen xoolal ñu suñ Kaolack gi sonn nañ ah sonn nañ beneen bi nag fa may tëjee mooy ma waxaat leen ko Médina bàyyi courant bi depuis démb ba léegi une semaine sax laay wax courant baa ngi naan xuy xamet te kaw Kaolack dafa tàng te suñ gan yi ñu ngi foofu ay naar ak nigérien ak américain ak lépp mu ngi fa ndox mi tamit mu ngi manqué ma wax la ko président su fekkee yëg nga ko wala yëgoo ko ministre boo fa mën a yónni mu ñëw fa dafa ñëw rek pour teew wane boppam nii waaye doxal gi ñu war a doxalee kon yeneen kër yi nu ñu leen di doxalee doxaluñ ko biir Médina baay man maa la ko wax monsieur le président pour rek nga yëg ko moo tax ma la koy wax maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp loolu laa amoon pour wax ko wax ko ci lu gàtt ci pour kaw rek Kaolack na bàyyi gi am pour ñu xam ko ñu dem dolliwaatal ñu te ñu ngi lay gërëmaat bu baax ci sa ñëw di ñaan yàlla fi nga bëgg a jébbu réew mi yow monsieur le président yàlla nga fa yegg ci zahir ak ci baatin te tara du la ko taree yegg foofu di nga fa yegg fi nga bëgg a yegg da nga fa yegg fa force te ni nga def tamit assemblée bi kontaan nañ ci ñun ñëpp yaa ngi dégg waaye nag maa ngi leen di wax tamit yéen doomu Kaolack nga xam ni seen làmmiñ rek laay demee li ngeen bëgg rek laay def maa ngi leen di wax ne tamit taxaw naa pour nekk candidat pour incha allah député Kaolack di xeexal Kaolack milliards yi ñuy séddale ci réew mi muy wàcc ci Kaolack incha allah candidat la te dinaa demal sama bopp incha allah li nga xam ni mooy député Kaolack lii laa amoon pour wax leen ko encore Mon Ndiaye ñu ngi lay wax jërëjëf ci jëf ji di wax ne doomu Médina yi nga xam ni ñu ngi foofu te yàlla may leen ñu am am am nañ ñëw taxaw ci gannaaw waa ji jàppalanteek moom génna seen alal defaat ci biir Médina Médina mën a taaru te gis naa ni la bàyyi ñaanoon ne Médina dana dem ba mel ni Médina ga ca Màkka loolu mi ngi commencé ñëw te ñun rek ñun doomu Medina ñun ñoo ko mën kon maa ngi ciy oo Sharaf maa ngi ciy oo Moustapha Cissé sama jarbaat maa ngi ciy oo Nazirou Seck maa ngi ciy oo Cheikh Baye Oumou parce que kooku duñ taayee di ko ci oo parce que jàmbaar la dañ ko cee fekk ndax lépp loo xam ne ci merina wax dëgg yàlla damay seede rek ndaw la boo xam ni ay million lépp fekk na ko mu koy def ci merina rawatina nag ki nga xam ne mooy Abdoulaye Muntaka lépp lu taaral meddina ci télé mu ngi ci lépp luy taaral Medina mu ngi ci ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant nañ leen jàppoo nekk benn liggéey suñ dëkk bi nga xam ne suñu baay xam-xam la oote woon xam-xam boobu nag nañ ko fexee tabaxal ay université tabaxal ko ay école defar lépp ngir Cheikh Ibrahim loolu laa amoon ci gàmm gi di wax maa ngi jéggalu taalibe yi wax dëgg yàlla xol bi dem mu ngi Medina Baye wax dëgg yàlla Ah, wax dëgg yàlla xol bi mu ngi Medina Baye ndax musuma ñàkk gàmm euh, lu dul ñaari at yi te maa ngi koy jéggalu taalibe yëpp du sama coobare waaye rek xam nga euh, euh, am na lenn yoo xam ne munoo ko wax waaye yàlla baax na lépp dina feeñi te maa ngi wàcc incha allah pour ñibbisi ci weer yi néew yi rek incha allah dinaa ñibbisi Medina